bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah internetu Dakaractu yaa maa ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm si àjjuma ji leen balu àq mu mel ni ki nag li may def rek ba may sori damay bàyyi Ousmane ah mu dégtal leen li li nga xam ne nii moom la yëglekaay yi xëy tey indi ci àjjuma ji ak ak li waraam ci weekend bi ñu doog a ñëwaat ak yéen ci plateau bi. bismillah alaykum wa rahmatullah vendredi 8 décembre 2023 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi bu ñu xey nak dañ koy door kay bi nga xamne mom modi sunu lamb sunu lamb tay xatam mu njëkk la xey gën ci fës bok na ci ki nga xamne ni mom modi bombardier bombour bi nga xamne mom mo wara beure le 24 décembre ak marim ak mbëri bi nga xamne mom moy mooy rëg bu ciaroy mom bombardier rek mom nëbbul ay waxam tey suba waxi nopi parce que lam ko xamal lenn la nee na ko mom so bëggee deg deg yow sama digënté ak yow moom mënoo wax a wax ba duñu xeex maanaam bu arbitre soufflé ba génn suñu diggante moom ay misil laa lay joor te bu bu la maanaam bu la ci dal rek soo bëggee dégg-dëgg su keroogee moom dina métti ci yow bu baax a baax a baax Bombardier daal la mu xamal rëg-rëg moom dana ko xeex maag yow ko def ndax nag yow maag yow mënunoo bañ a xeex faw nu xeex ba nga xam man lan laa ma ne rëg-rëg nekkoon te maanaam daal yow yaa ko tey neex soo bëggee dégg-dëgg moom man sax maag yow dañ dul benn maa la gën a féete xale te itam nag maa la dàq xeex maa la ëpp doole te maa la gën a pare kon waxi xeex jooju nga may wax yow Bombardier su keroogee foo baat rek dama koy kub mu mel ni kon boobu combat moom moom fu mu nii moom mooy nañ ko maanaam daal date ba lañ ko jàppoon moom dootu ca am la ko waral nag Ama Baldé di adversaire Gris moom moo dugal certificat médical fa nga xam ne ni moom moo di CNG maanaam di wane keneen yi nag moom daal wér-gi-yaramam mayu ko mu bëri pour le 7 janvier point atte tamit xëy na wax ñu lu mel ni noonu ne diggante Ama ak Gris daal fi mu nekk nii moom ku ko doon xaar maanaam ci la sept janvier ji moom bu yeboo nga xaddi te xaaraat beneen yoon ndax nag boobu yoon moom mënatu moo a bëri ak Gris Bordeaux moom moo wéradi ba jël médical moom la bokkalub gox muy Boy Niang numéro xam ne moom mooy Ama Baldé yëglikaay bi nag nee na Ama yoo xam ne dina ko toog moo tax nag yëglikaay bi jàpp ne fi mu nii day bu bëggee dégg dëgg Boy Niang kese moo des ci xeex bi ndax nag maanaam bu Boy Niang bëree woon le premier janvier ama bés bi day jël si mu bëree te nag loola mënatul a nekk léegi Boy Niang képp moom mooy bëree le premier janvier moo tax yëglikaay bi di sunu làmb xëy di wax lu mel ne ki noonu beneen combat boo xam ne nii wala yeneen combat yoo xam ne nii dafa nar am combat yooyu bokk na ci diggante ki nga xam ne nii moom moo di Giro Seras ak mbër mi nga xam ne ni moom moo di Abu Ñaase loolu suba ci samedi ji lay am te Diouf ko ne ca dimanche ja lay am wala yeneen combat yoo xam ne day am ca dimanche ja bokk na ci diggante daabu Texas ak ki nga xam ne ni moom moo di Sandref combat ba nag kafa jaar du kenn ku dul ki nga xam ne ni moom mooy Ibra Diouf ma nga xam ne moom moo jiite Mbewaan production waaye bu ñu demee ca Thiès tamit dañ fay fekk boo xam ne day am Sidi Diakhaté ko tëgg dox ci diggante ñaari laay yi laay Pythagore bu roog énergie di poulew Modou Lo ak laay goote ma nga xam ne mu nga ca Thiès di rakki Modou Anta kon loolu tamit day am fa nga xam ne moo di ca Thiès lambi simple ja tamit day am ci ndakaaru fa nga xam ne moom moo di Adrien Senghor ka kay amal moom moo di Abdou Waxal drapeau ba nekk drapeau Louis Senghor mu teg fa un million kon taal boo bëggee dégg dégg maanaam weekend bi lu ko commencé samedi ba dimanche làmb ji dana jax ba yegg ci lool mu mel ni nag kon loolu tey moo fi dikkoon ci yëglikaay yi jërë ngeen jëf kon dégg ngeen tey loolu la ñu yëgle kaay yi xëy tey indil mooy ay xibaaru làmb yoo xam ne nii moo nar a am nag ci weekend bi ajjuma ju jot nag dañ leen koy defal fi nga xam ne nii moom moo di ci Dakaractu maanaam lépp loo xam ne jàpp nañ la làmb la lu ñu am comme ay information dañ leen koy tënkal tegal leen ko ci taabal ji wax wax leen ko daal jot li leen ko ba ngeen jot ko mais nag ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ak foo leen mën a nekk rek si àddina bi di leen balu àq bu a baax a baax rawatina nag suñu soppe yi soppe Dakaractu yi yéen wax ne gis nañ vraiment zem yi ni muy yokku bëgg nañ nak man ma koy ñaan na ah, solennellement inshallah rabbi bala décembre bi di bala ñoy yegg 31 décembre bëgg na dal ngeen defal ma 1 million d'abonnés yi ma man ko fété parce que lolu c'est pour moi quoi c'est pour Babacar du mëna ñak mais ma ngi nuy technicien yi Ousmane ma ngi nuy di nuy Cheikh Omara ah, ak gaay yi nekk foofu yëpp ñoom yoroog tout ça légui nak fi ñu ñëkke mom moy suñu lamb par rapport ak Bombardier Reug Reug parce que bo xolé suñu lamb ñëwaat na ci seeni wax wax yi nak Euh, maanaam ku ci na nga wax Bombardier a wax na ak Reug Reug Reug tontu na ko ki dem Bombardier la mu xamle mooy maanaam ci xët bu njëkk sunu làmb ki nga xam ne ni moom mu Reug Reug maa ngi moom faw ñu xeex mënuñoo bañ a xeex defante loolu la ko bomb wax dana ko faw ñu xeex balaa ñoo bëri loolu mooy li mu li mu gëm tey jàpp na ne moom li ko ne ndax da ngay maye sens mu ne non man mayuma kenn sens damay bëree moom Bombardier loolu la jàpp Reug Reug tamit tontu ko bër ki jëm ne ko yow maa la ëpp doole maa la dàq xeex yangi deg te itam nak ma la gëna fété guné kon lo ci dugg ak man rek do ci jëlul la neex melni kon combat le 24 bobu teel naa tàng parce que nak bo déglu sen ñaar communication yi nga xamné ñom ñaar ku ci ne décider nga li am solo nag mooy Bombardier ku na xamné ci kon ci lamb nekkul kul mbir bo xamné ni mom ba mu commencé ba tey quatre-vingt-quinze ba fii nu koy waxee muy bëree mosuma gis mbër maté ko manam maanaam mëlañ ñëw ko jaar ci kom jalla dé dé mbir yi ko daan yépp boo xoolee delluwaatal nga xool dañ koy naxtaan ba daan ko rëg-rëg nag kere laaj naa ko ndax loolu duñ ko mën a def bombardier mu ne bu buñ ci yëggee est-ce que loolu ab laaj la sax la ma tontu ndax mën naa manipuler bombardier wala déet rëg ne na loolu du question ndax manipuler naa ñu ko ëpp mën na eltu na ëpp doole rëg-rëg loolu rëg-rëg ko wax eltu na ëpp doole bombardier rëg-rëg ko wax indi misaalu gri deux waaye nag kon moo lay wan ne combat bi nar naa métti rëgg it nee na moom moo ëpp doole moo gën a féete xale moo dàq bëri moo dàq xeex waaw xam naa daal li am solo mooy xale gi moom yaa ko gën a féete waaye yow ñaan na képp doole ah bés ba la ñuy bàyyi bañ yegg sa parce que li tax loolu mooy Bombardier ba fii muy daa daaw la mujj bari ah te kenn gisagul si Bombardier signe bu wane ne kii indi doole gisaguñ ko bi mu bëree ak. Eumeu Sène Eumeu Sène ci ay ndoxtu bëre la ko daane bi muy daan Balla Gaye keroog moom Balla Gaye de ku ko ku gis nañu bëree moom boo mën a jënd am gagné di nga xam ne doole la indi indi xeex bu wër ba gagné Balla Gaye bi ko tafaatin di gagné par décision médicale tamit boobu blessure la am ci benn jàppante bu jàppante moo tax mu ñàkk boobu combat kon gisaguma ci dernier combat yu mujj yi fu nga xam ne wan na maanaam Bombardier ñëw na nga gis ne kii doole nekku fa ba tax ñu jaar ci koom daan ko mën a bëre moom man Babacar dama koy dëggal ndax li tax mooy dama koo topp mu mbapat drapeau bu dul drapeau jënd Reug Reug gagné na ko tournoi bu ne la gagné Reug Reug demoon nañ ci mbapat bu daanoo mooy nekk information bi mais Reug Reug jël na mbapat du nekkatuloon information ndax lu tax mooy dafa demoon ba tey mbapat ne ay at def ci lu nga xam ne ñëpp ñu seetaan mbapat ci ñu njëkk ñi ba tey ne nañ mosuñoo gis mbër def li Reug Reug def ci mbapat li avec frappe tamit Reug Reug benn yoon la ci dégg mu ñël mooy combat bi mu jëmoom ak Sa Thiès donte nag keroog ku ne dégg na mu waxee daa jàpp ne moom amagul defet waaye rëg nag am nga defet Sa Thiès dalaa daan loolu moom mooy li am waaw parce que nag dëgg yàllaa ko moom te itam sportif nga sport perte da cee bokk da nga perte boobu combat nangul loolu yaa ngi dégg terewul laa doon champion ndax boo bëggee dégg dégg bi nga duggee ci làmb yàggul marqué nga sa empreinte am nga tey chance di bëri ak Bombardier ci say moroom yow rek la ko yàlla may te say morom yu bëree ko bëgg ndax ah. ndax Bombardier royukaay la ci lépp loo ko jëlee ci cadre sport bi ci des dégg na deux fois roi des arènes kon soo soo soo demee bay bëri ak moom yaakaar naa loolu boo liggéey kon du la jël déedéet daan bi la daal Sa Thiès daan yàq loolu lu bëri parce que dañ cee dégg am Bombardier waaw kon kay loolu mooy sport loolu mooy làmb bu ba tey des ci wàllum euh, làmb ji par rapport ak euh, Ama ba Gris Bordeaux bi amateur yi doon xaar pour le 7 janvier Ibrahima Diop Kajoor production tëggoon ko mu mel ni ki nag li euh, ah médical dugg na te Ama moo ko dugal ndax la tax la ko waral mooy daa wérul. wér-gu-yaramam daal moo ko permettre mu bëri date bi nga xam ne nii ci la ñu jàpp komba bi sunu làmb ñëw na ci ah point actu tamit ñëw na ci ñoom ñëpp ku ci ne wax nga ci mbirum médical boobu mu mel ni ki nag kon fi mu nii combat boobu ñu doon xaar la pour le 7 janvier malheureusement pour les promoteur dootu ca am. yaa ngi dégg wala wala boo acteur u làmb yëpp parce que bon acteur u làmb benn bu dara dal rek dal na ñëpp Ibrahima Diop Kajoor production vraiment ñu ngi koy massawu waaw parce que moom bon suñu waay la suñu xarit la et puis nit ku baax la waaye nag gis nañ ne que ci làmb des fois mu ngi ci amee yenn jafe-jafe yoo xam ne nii ah bon loolu tamit mooy xëy na lii gën ci moom waaw parce que it mbir boo ko fekkee di ko nettali rek santal yàlla yaakaar naa ne du moom Ibrahima Diop. moom lañ jàpp làmb làmb ja ñëw ñu ne Ibrahima amul lu mu joxe wala nangam déedéet du Ibrahima la loolu daal yàllaay dogal mbir yi muy tëgg ñooy am ay blessure wala yu mel ni ki doon bañ aj combat yi bu njëkk de gii moo amoon blessure bañ aj combat bi ñëw ba fii ñu dikkaat tey ama moo amat ak wéradi kon loolu moo lay wan ne yàllaay jaamay bëgg di sabab waaye yàlla nag mooy dogal kon Ibrahima ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na ñaari mbir yëpp disponible at d'ici quelque temps ba nga mën a jàppaatum dat ñu bëri ko ndax combat boobu ñëpp a koy xaar ndax dégg ngeen kera la ca tafaatin wax waaw euh, buñ ci jógee ñëw nak ci ki nga xam ni mom moy combat premier janvier parce que nak comme ama bëreetul 7 janvier ndax Boy ñang su bëroon premier dimanche bes bëre dellu su mu jox ama mu bëre mais loolu amatul ndax ama médical am motax mënatul bëre dat bob légui kon Boy ñaar rek mo des fim nek ni dara défendre couleur Pikine pour le pour mois de janvier ci ci début année 2024 bu muy le premier digënté mak Modou Lo roi des rendez ndax ko di couronne muy combat boo xam ne bu nara metti lay doon ndax nak liko waral moy ñaari mbiri ko sekk la ci walum technicité ci wàllum mën a bëri aussitôt ci wàllum am encadrement ñoom ñaan ñëpp ku ci ne da nga koo am ba mu doy sëkk sëkk sëkk kon le premier moom xalaat naa ne dinañ gis combat bu neex yàlla nañ ko fekk te tal ko ñu ci nuyu ma kan mais di ñaan suñu baay Gaston yàlla wéral ko yëkkati ay cëram ba mu dikkaat ndax lii yëpp moom la waaw moom suñu papa Gaston Mbengue ba tey tamit weekend bi nar naa yëngatu ci wàllum làmb ndax comme ni ma leen ko waxee rek euh, à partir de euh, tey ji bu ñu ginnaaw bu àjjuma ji jàlleeg tey suñu ci samedi ji bu soobee suñu borom ku ne xam na ne ca arène national làmb ju neex dina fa am parce que li nga xam ne làmb ju neex mooy Abou si Guiro Seras loolu làmb mënu koo dàq booy wër làmb espoir bu neex dëgg dëgg dëgg dëgg nga bëgg ko gis suba bu la kenn jiitu arène nationale ndax mor mi ko teug dafa dund lamb en tant que supporter dund ko en tant que amateur yaa ngi dégg nekk ko nga xam ni nii na ne na tay su nee fallu Ndiaye ngay gis muy mel ne ni Mor bok na ci ñi ci su ay rôle yu am solo mom Mor mom nak bu demee ba dag licence nek promoteur su teug lamb du neex day neex ndax gis nañ combat bi mu jot bi manam combat bi waroon nañ ko bëree dat dañ ko waroon Abou Niass mii moo blessoon ba bëriwuñ ko mais terewul Mor continué woon ak mbër yi fa desoon tëgg joueur ku ñëw arène nationale di nga xam ne Mor mi maîtrise na bu baax a baax kon suba incha allah rabbi ku ñëw arène nationale tam da gis loolu kon Mor ñu ngi ko ñaanal yàlla suba mu réussir journée bi muy diggante Abou Niasse ak Guiro Seras bët set ba tey dimanche beneen zone boo xam ne tam mook Mor moomu ñoo bokk groupe bokk di ànd muy jeune amateur muy Ibra Diouf bu Mbiyaan production Ibra Diouf su ginnaaw suba mooy ñëw moom itam indi ay xale ndax xale yi dañ cee bokk. te sen combat yi day faral di neex lol lol lol mo indil ñu daabu Texas nekk xale bo xamne ni yaakar la ci gox ba muy bàyyeekoo waaye boole ko mbër boo xam ne nii jaa yaakaaroon man Babacar ga bi sooro na dépasser fi mais nak bon xeyna mbir mom ni nga koy bëgg ak ni muy amé des fois du ben ben muy sandra nek école de Cheikh baba lolou dimanche lay am ibrahim Diouf production moko teug mais ba tey ci dimanche joju tamit Ndakaaru doy teug mais ci stam combat bu neex dafa am ndax retour la Pythagore ak retour laay goote ñaare laay yi war faa kii ne ci keppaaru Modou Lo kii ne ci keppaaru Modou Anta mu nekk combat bu nar a métti te ñoom ñaar li ñu xamul mooy ñoo bokk région de Thiès waaw <laughs> ndax laay Pythagore dëkk bi mu dëkk ci région de Thiès la bokk. waaw boo xoolee muy fekki mu doon te ca muy fekki laay goote ca capital ba mu nar a nekk combat bu neex ak sunu papa di Jaxate ah Jaxate Kaba yéeri kon gars yi loolu na ngeen ko xaar te lépp nag incha allahu rabi dañ leen ko toppal ci Dakaractu parce que Dakaractu mu leen wax rek waaw foo dem ci réew mi Sénégal ak li ko wër walla nga bitim réew lépp lu fay xibaar rek dañ leen koy indil ndax fu ci nekk rek am nañ fa ay correspondant ak ñu fa teew kon. làmbi dimanche jooju di ngeen ko am ci Dakar ak te ni ngeen di amee làmbi Dakar yi bu soobee suñu borom mais tamit Adrien Senghor suma jigéen ah suma xarit hmm, sir ma Macoumba Diouf meeru la Mbengue docteur maa ngi ko ziar soxna soxnaam di Louis Senghor moom lañ fa tuddee drapeau ki ko def nag moom mooy càmmeñam di Abdou Waxal ah, di magu Louis moo ko tuddee drapeau. dimanche ci arène nationale euh, astafurla ci Adrien Senghor teg mise u un million lal nag lambi mbapat lay doon waaw kon yaakaar naa ne loolu mooy li nga xam ne nii mooy lamb yi nga xam ne moom war am ci weekend bi entre Dakar Thiès muy lamb simple yi ak lamb dóor yi mu mel ni ki nag fi nekk nii lamb ji macha allah mu ngi marché parce que mbër yu mag yaa ngi bëri mbër yi ci topp a ngi bëri yi gëna kii ñu ngi bëri loolu nag mooy li ci am solo yaa ngi dégg kon ñu ñaan yàlla rek journée yi yàlla na réussir. Hmm? am na gis nañ tamit yaaram aar taxawal na combat Gris 2 ak doomu dàngu loolu tamit ci information yi la bokk muy combat boo xam ne ñoom ñaari mbër yi yàgg nañuy jooy ne nañ leen jox combat ñu bëri far nag yaaramaar ñëw boole leen ñoom ñaar ñi nga xam ne adversaire xawoon na leen a të ñoom ñaar nag ñoom ñoo war a daje dem dégg ngeen dàngu li mu wax ci jëmale ko ci Gris 2 yaa ngi dégg loolu tamit dinañ ci rebondir ñëw ci benn mbir boo xam ne dégg nañ ko mu dal ci làmb ndax tey Gris Bordeaux maanaam icône la ci làmb Sénégal ba pare jiite les lutteurs en activité nekk seen président am benn benn mbir bu ñu dégg ne da ko arrivé ci France ak yu mel ni ki noonu ñun nag lu mënti xew rek ah ñu ngi si ginnaawam di ko ñaanal yàlla loolu ak lu ca mënti xew yàlla na sedd guy rek parce que giri ñun yàgg nañ koo xam depuis mu nekkee di bëre pat man Babacar laa ko xam fii ci centenaire baataal mu fay dajeeg ñoom Paate Balde ñu nekk ku mën a bëre ñemeel lool lool lool lool lool parce que giri sax dama naan bëreetul te yaakaar naa tey nag bu demee ba fi mu toll nii nekk ci les VIP nekk ci mbir yi nga xam ne tey seetu làmb lañu yaakaar naa ne kooku bu ko mbir arrivé duñ mën a def lu ñu rek ñaanal ko yàlla loolu lu mu mën a doon yàlla na sedd guy ndax giri nit la nga xam ne wax dëgg yàlla nit ku baax la ku respecté nit te itam ku gën lu muy def la te itam nag sportif de haut niveau la loolu la yàlla dogal waaye nag àddina moom olof ne na moo ko weeru koor a yem feeg jumte ku ne lay dal li am solo rek mooy bu kenn yaakaar ci ñun ne yow mat nga ba waroo erreur mënulaa dal déedéet loolu nit bu mu koy xalaat ci àddina non non non fekk yaa ngi dund di noyyi toujours mën ngaa juum toujours mbir mën na laa arrivé parce que loolu mooy doomu aadama nit. loolu moo koy def moo yokk ci boppam ak nite comme li may faral di wax Seexu Omar nit loolu da koy yokk ak nite da koy yokk ay leçon de vie ci àddinaam pour mu mën a jàng loolu mooy li nga xam ne ni moom mooy lu am solo muy giri ñu ngi koy nuy di nuyu waa écrit yëpp ah écrit bi mu bokk di leen masawu parce que yooyu bëgguñu ko di dégg su dalee ci ku ñu bokkal nag ah euh, ak lu mu mën a demee rek dañuy nekk ci ginnaawam jàppale ko aussi too xam ne suñu njaboot la kamu ko keneen euh, ka ca ab Sénégalais la ñëpp ay doomu Sénégal lañ kon lépp mën naa rafet ah di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ko dëkkoo di euh, wax que ne rek yàlla na yàlla def jàmm di nuyu waa yëpp encore une comme ni ma koy waxee rek mais tamit di nuyu techniciens yaa caméraman yi vraiment ay jàmbaar lañu maa ngi di béggee ñoom ñëpp ñëpp ñëpp Pape Faye moom tamit ah doomu Pikine nga xale bu am yar waaw. waaw moom ndeysaan day liggéey te du wax Cheikh Omar doomu Saalum moom tamit waaw jàmbaar la jobkat la xanaa dañ ko bëggee rek moom a si jaaxal Ousmane maa ngi koy bëggee yéen ñëpp maa ngi bëggee Moustapha su ma limee dinaa juum ak Bamba ah, ah Bamba tamit waaw moom tamit macha allah yéen ñëpp rek caméraman yeeg. caméra mu woon yeeg tout su ma limee ak juum journaliste yi yéen ñëpp bëggee naa leen di nuyu nag kilifa yi encore une fois Yves DG Demba ak madame jaañ yàlla na ñëpp am jàmm di leen jox dig daje rek ngoon incha allah rabbi xaar leen di ngeen fi am plateau bu neex comme ni ngeen koy amee ajuma bu jot xattar bi ngoon dina ñëw no xattar bi ko nag am fu nu daanu ji ndax nag. dañuy xàttar bi ko ndakaaru wutali bari ñi ngoon Quench lébu ndóoy bi mooy ñëw fii toog jàkkaarloog Zallo ñu waxtaane làmb ak Mor mi nga xam ne moom moo tëgg samedi ak Ibra Diouf mi tëgg dimaas loolu lañ leen di indil tey si Dakaractu du mën a ñàkk vingt lay commencé xaar leen ko ba beneen àjjuma incha allah rabbi